mësuma dem. ndax fo ndax ndax foto bi. na ma jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ablaye waaye bala ñoo euh, ñi nga xam ñoom la ñu seqal waxtaan wi. mësuma dem ndax fo ndax ndax foto bi. foto na ma jërëjëf jërëjëf euh, ñi nga xam ñoom la ñu seqal waxtaan wi. sëñ Ablaye. waaw. bayit woowu sëñ Tuubaa dane yaa saydi yi hmm? xam nga woykat boo amee sa géer te xam ko uh-huh. xam sa géer uh-huh. man koo woy ci buyootaat yi mu dëkk ci néeg yi mu dëkk man koo askan uh-huh. te muy sa géer ngeen bokk porukaay yi déem bokk ak bokk bokk lépp te mu bëgg la sopp la say wax neex ko ba noppi géer ga nag doon géer goo xam ne gi am na way te am juddu te am lu mu maye. Mm-hmm. kooku mooy Rasulullaay Sëñ Tuubaa ku ci nekk mm-hmm. dangay am confiance ci sa bopp gis nga géwél bi li ko may gi neex neex mm-hmm. way wee koy gën a neex fuuf barki Xaadimu Rasuul dëgg la géwél bi nga xam ne dafa am géeram gu baax waaw gi am way am juddu may gi ko géwél bi géer gi téel war ko koo may may googu way wee ko ko dàqal dëgg la sëñ tubaa dafa boot ay loxoom ci buntu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di bàgg di ko way di ko way di ko way ba yàgg moom sëñ tubaa mu neer ne ko yaa saydi yow sang bi yaa rasulullahi yow dawal yàlla li yaa sanadi yow sama sang bi yow sama kilifa gi inni naka man cheikhul xadim lan baa bi maa ngi fi sa bunt bi kal masfuuri fil xarani maa ngi mel ni kuñ doñ doñug lan kële mooy boobee mu jooree bootee ay loxoom nag ba ba fa xus te kun muhini ala nafsi wa xus bi yadi wa bi mulaaxati judli ayama zamani laysa li al yawma aajatun uwammiluha si waxti fa ika xafool xalbi ko kaay dimbali ba ci bakkan bi na mokk bu ma yëgati dara bu ma yëgati benn coono wa xus bi yadi kaay téye ci sama loxo téye ci kenn du ko wax koo jàkkaar moo tax mu ni sëñ Tuubaa nee na tagg naa rasulullahi ba bokk ci ahlu bayt rasul ak sahabatu rasul boo ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin sëñ Tuubaa nee na boo ne wa ala alihi bokk naa bone ne wa saxbi bokk naa madaxtu rasulallahi xata ka anna nii mahal aali wal asxaabi bi gis wal xal bi yonent ni ko loo bëgg mu ne ko lay salli yàlla yow ma aajaatum wa la aw ma benn doléance ma lay wax si waxtu saa ka xaw ma xafal xal bool ba dañuy ma dara aw ma benn doléance aw ma jenn tawat lu dul xeñtu la rek xafal xal bi wal badani xeñtu xol ak yàpp yaram yow daal ku la xamoon ku ne yow Muhammadu Rasulullahi su saaba yi dellu soon gis ma man sëñ Bamba bu ma waxee nañu jooy bu ma jëfee nañu jooy naa la nu arfan doo arfin loolu moo tax sëñ Tuubaa ni aw ma tiitukaay du ma ragal ndax bu ma nekkee ca géej gi dans les îles fantômes du Lagué bu ma nekkee ci biir tubaab yi bu ma nekkee ci natt bi lu ma wéet wéet lu ma sori sori lu ma xiif xiif lu ma loof loof sëñ Tuubaa nee su ma nee Muhammad damay amaat beneen souffle damay amaat beneen élan damay amaat beneen énergie damay yeesaat peq ni Muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru xalbi wa aadaai wa raxaati nee na muhammadun muhammad zikruhu turam woowu rek um si mooy sama wéttal wa mafraxati mooy sama bànneex wa nuuru xalbi mooy leeru sama xol wa aadaai ak sama cër wa raxaati mooy sama loisir mooy sama récréation moo may réanimé moo tax naar bi dafa gis ab naar dafaa ñëw di shérif di ko ne sëñ Tuubaa gis luñ ko dil muy tegal luñ ko dox du ko laal mu ni tegal foofu sëñ bi naar bi daal di koy laaj ni ko waaw Mbàkke yow lii ñu lay jox ndax dafa aram sa taalibe yi la bëggee looñu am jox la ko te ñoom dañuy liggéey ba dee ca naaju lu la jox nga ne cegal mu ne ko waaw dama ko déewul dara damaa am li ma bëgg ni xanaa xamoo ni alal defee li nga bëgg rek lay jariñ te ni ko luñ la mën a jox ci àdduna defee la li nga bëgg ku gën buñ la joxoon àdduna li ci biiram da nga koy def ci li nga bëgg ba am li nga bëgg wala loola jeex sëñ Tuubaa ni ko man nag am naa li ma bëgg ma dara dara ooteetu xubbul Moustapha wa ak tafii bi zaaka fal mootaa kafaafan yëg tafii sëñ Tuubaa nee na yàlla may na ma ak cofeel ci rasulullahi mu doy ma doyatuma dara dara loolu tax ay jibaam ay yéeram dawl am jiba nee na dootuma denc ndax am naa rasulullahi fal xubbu xayrun maa li shaxsin wuhiba walaw ka muslimin at adisaba nee na loo mën a may nit rek may ko li mu bëgg ku gënal ndax luñ la mën a jox rek da nga koy def ci la nga bëgg ba am la jeex sëñ Tuubaa nee na am naa rasulullahi am naa yàlla am naa alquran xabatullaha wa rasul wal kitaab mustaxlan an isaab wal itaab kooku moo ni sama digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ka ca topp rek yéena nee na mbëggeel moo mën a taqale yaar yu sore ab naar dafa ñëw di ko wan boppam ni ko gan laa gu bàyyi ko fu sori waay sérif laa ab sang laa sëtub rasulullahi laa diwoo ma jur diwoo ko jur diwoo ko jur di boppam di tagg boppam ba ci yonent yàlla Muhammad sëñ Tuubaa ne bees ni mu ne ko naar bi wax na leen dim demee ak Rasulullah yéen nag wax leen ko di ngeen demee ak yonent bi sëñ lu mu lay digal lu ne rek koy daal def sa xol nga daal di koy xam da ngay tontu mu ne ko naar mu ne ko ah, mu ne ko ah, dëgg la moo de noonu kat boo nee Rasulullahi ni xaadimu Rasulullahi loolu cofeel la cofeel ga la ni mu ko bëggee ni ko bëggee yéeme na. Ah. ndax. Ah. kenn mu sa gis ci kaw suuf koo xam ne kii da ngay rouler ni montar samay nelaw rek mooy fi may tegee baraada bi njëm di gi ci wéttee ma njëm gi ci ci moxraas bi ak fi muy baxe foofu dong su ma doon nelaw fi laay nelaw lu ko moy day rouler saa yu ne Mouhamad Amar Elan saa yu ne Mouhamad Yassar Pek ni koy naani doom dundam gépp mu jeexal ko ci diggante yàlla ak rasulullahi ba yonent bi ni ko yow Cheikh Ahmadou Bamba na nga xam ni su ma gënee su ma gëneelee yàlla ci lim bindit yow yaa ma gënal sama bopp ndax nit amul loolu boppam foofu la cofeel mën a yem bi xubbi rasuli lazi sarmadan sandi alihi bi matfil maliya loolu moo tax nag yàlla fayee ko ay saabaam bëgg ko lool ay seexam bëgg ko lool ay doomam bëgg ko lool ay taalibeem bëgg ko lool yàlla sun borom loo ko lebal ci rasulullahi rek mu fay la ko sëñ tubaa nee na yonent bi wax walazi man bi muraadihi ixtada fii sirri wal jahri yakoonu muxtada nee na njool màkk loo ko lebal rek yàlla fay la ko di ma ko dox soppee sama lépp bëgg ko sama lépp dox ko sama lépp ci la ma yàlla fayee ci xeetam bi ñëppit ma gën leen seen lépp bu fekkonte ni kenn ci ñu àndal gënoon naa bëgg sëñ tubaa ni sëñ Tuubaa bëggee rasulaay kon yàlla du ko nangu waaye kenn ku seen newu ci kenn na koo xam ne kii ci nga ànd ak borom tubaa séen nga jigéen nga ni sëñ tubaa bëgg rasulaay amu ci xaddi wiqaayatun li rajuli mujtaba an shakwatin waayu daahi aqraba ñoom ñëpp ko bëgg de waaye ku ko ci xool diggante ak rasulaay xam ne moo la gën a bëgg sangam bi bokkul sax da koo bëgg ba fanatique ci moom da koo bëgg ba dof ci moom da koo bëgg ba mu gënal ko lépp da koo bëgg ba jeex ci moom xaraxtu fii baxri mahabbati rasul la sëñ Tuubaa bi nee na géeju bëgg rasulaay lab naa ci man sëñ Bàmba dootuma fitti lab naa ci te loolu nag wax ko rek wàcc da koy prouver ci ay waxam ci ay jëfam ci ay xarakaatam ci ay sakanaatam xam nga ne ku jàkkaarloog sa ñaari doom ñu leen bugguma leen te taluma leen loolu courage bu ñu ko weesu waaye nag yàlla fay na ko ba ca jotaay boobee ko Moustapha war lu naa leen ñett yett war nu naa leen yet nag ci bëgg yi ma bëgg rasulaay ba ma guma leen warlu naa leen fii ba bëf tey wal fu ngeen fi dem ku ngeen fi dajeel yéen a ko gën bàyyi sëñ Tuubaa ko Seex Mustafaa Sëriñ Faliilu warlu naa leen yéen ñii ma jur fii ba bëgg yu wal bu bi fu ngeen fi taxaw ci adduna ku ngeen dajeel yéen a ko gën bàyyi sëñ leen ko warlu naa leen yéen yii ma jur ngir bàyyi gii ma bàyyi sama bopp bàyyi leen taluma leen ngir bëgg rasulullahi sallallahu alayhi ma musuma cee teg kenn sama penk bii musuma cee uuf sama doom musuma tungoom sama benn parental musuma jàpp sama loxo doom di dox muy dox musuma may sama doom mu jàkkaarloog man di ma xool dama ko naan wëlbatiku jublu fi yoo jublu muy fenk warlu naa leen jant bu so bu ne bay fenk koy dàq ci yéen boo ngeen tabbi àjjana lu naa leen yéen ñii ma jur kenn ku ci nekk àjjana di dàq ci àjjana bu sabaroo tax te ngay tàbbi waaye nag lay tax bu ngeen fi jógee kenn leen fàtte ay lay tax ngeen mucc bàyyee naa leen ko yéen koy jëf loolu la sëñ Tuubaa wax leer na hmm. euh, boo dégloo rek busra ci ni Serigne suturaale yonent bi ndax ñu bari bu ñu jëlee rajo ëmb na ko imbi na ko bam yooyu yëpp sëñ bi du ko laal dafa teral yonent bi buy wax it da nga xam ne yonent bi la wax waaye balaa yëg ci turoo mu yàgg lool da koy junj parce que loolu nag mooy jox yonent bi war ma war ma ji yonent bi am kenn wër ta tab ci digg bi da koy wër moom moom moom moom la ñu indil. moo tax tey ñëpp a ngi woote ñu ngi déglu tey réew mi yëpp Bousra Khadim Gueye la ñu li ko waral mooy Serigne Touba ak ni ko indee Lam dama lay bàyyiwaat nga digg ak moom nag ci digganteem ak Cheikh Ibra mhm. waaye Abdoulaye Lam. Mhm.